résidence dédiée ñu dem sax bay am ñuy jàpp ne que parjure lañ koy tuddee est-ce que les mots ne sont pas trop forts et est-ce que waruñu tamit xool au-delà euh, de justement ce qui a été dit bah c'est-à-dire que les mots ne peuvent pas être trop forts parce que il s'agit quand même d'un président de la République boo xam ne dafa am ay euh, prérogatives eh ben euh, il en a profité pour teg deal ñi nga xam ne ñoom ñoo jàkkaarloog ñoom teg na leen deal nag ça a marché et de toute façon il aurait bien fallu que ça marche parce que moom mooy président de la république te moom mooy prioritaire c'est une évidence donc li li am kay mooy mooy ñaaw teef bi ñaaw teef ci moral ñaaw teef ci éthique parce que il s'agit quand même d'un président de la république boo xam ne waxam ak décret dafa am benn espèce su sacralité boo xam ne wax dëgg yàlla jéggi na dayoo te kooku warul waru warul nuroo ak waxu Alioune Sow wala waxu Omar Faye ou quelqu'un d'autre je crois que c'est une honte dans ce pays ñëw taxaw tey jii nii di jàkkaarloog àdduna bi naan Bassirou Diomaye Faye li mu def baax na oui la dissolution de l'Assemblée nationale je suis entièrement d'accord avec cela parce que bu fekkee ni ñëw nga assemblée yoon moo ko wax vingt quatre mois eh bien président de la République mën na pour de de manière discrétionnaire il était même pas obligé de s'expliquer mu ne man damay dissoudre assemblée nationale mhm. kon loolu kenn weranteetu ko li am kay indi problème bi yëpp ca njëlbeen am na ñu ko wax fii nag day fàttu wax na ko oma wax na ko mais dañ ci dañ koy bam dañ ciy bamtuwaat parce que il faut que sénégalais comprendre mbir mi nan la demee ñi déggul woon gën a déggaat ci beneen façon yu waxin li leer mooy dafa am un président de la république boo xam ne dañ ko fal en février biñ ko falee eh le 3 avril mu def lu ñuy wax euh, euh, loolu noonu ñu euh, waat na. prêter serment prêter serment bi mu defee bu mu bu serment ba pare mu war a former gouvernement au départ mu war njëkk jël koo xam ne mooy son premier ministre de la république conformément à la constitution premier ministre boobu xam na ni am na loo. cinquante cinq boobu dafa ne un la République du Sénégal dafay dem c'est une obligation day dem lu muy def déclaration de politique générale dañ ko ko imposer léegi nag constitution duggul ci ay détails nu ñu koy organiser ak yooyu mais de coutume que ni en général ñetti weer lay def quatre-vingt-dix donc ce premier ministre là avec son président de la République lan mooy inspiration ak nan lay yón lan la yónni premier ministre Assemblée nationale parce que président du dugg assemblée nationale ci suñu suñu suñu régime yi ki muy yónni moom mooy son premier ministre waaw léegi fal nañu euh, nommé nañu euh, Ousmane Sonko xam na ni am na quatre-vingt-dix jours pour dem assemblée nationale def sa politique euh, sa déclaration de politique générale wala Sénégalais yi fan la ñu mën a jëmee ñoom ak nguur gu réew bi nguuru nguur gu nguur gu bees gi aux côtés de son président de la République de patron eh bien mu jéem a xool nan la ñuy organiser réew mi wax sénégalais yi fan la ñu jëm mais aussi y a la communauté internationale dañuy seetaan xam aussi ñoom tamit mbir mi nan lay doxee Sénégal ñii ñu bees ñi fan la ñu jëm ci loolu loolu la ñu waroon dépendre pour mën a organiser réew mi même les investisseurs étrangers donc c'est tout à fait normal et logique donc moom xam na loolu moom ci boppam am na expérience assemblée nationale nekkoon na député am na lu mu jot xam tuuti quand même par rapport à son niveau donc xam na ni déclaration boobu daf ko war a def pour les raisons précitées ak yeneen yeneen yoo xam ne sax mi ngi fi waaw léegi moom ca njëlbeen depuis le 5 boobu toog na ba 80 jours de règne 80 juróom-ñetti alors mbir mi ñetti weer la muy 90 euh, jours muy euh, juróom fukki euh, juróom-ñeenti fukki fan. eh bien toog na ba juróom-ñetti fukki fan yi moom mu des fukki fan pour que tradition bi ni mu daan doxalee mu des fukki fan yooyu mu doog bind lettre organiser mbir mi ak ay conférence de presse 24 heures avant et cetera ay benn lettre de Guy Marie Sagna pour jéem a tontu pour ne moom du def règlement du def du def déclaration de politique générale ci conditions yi parce que le règlement intérieur bi baaxul waaw ce règlement intérieur là s'il était faux logique pour logique waruñu woon ba ci. Euh, euh, euh, Euh, comment dire euh, euh, la déclaration nu mu tudd ci le machin budgétaire là xaw ma nu mu tudd y a tellement de noms mooy DOB bi mais DOB boobu lan moo ko encadré du article 3 du règlement intérieur mais règlement bu baaxul yow nga bëgg yow nee na règlement baaxul waaye yow DOB bi quand même ko ci def te li koy organisé mooy l' article 3 de ce règlement intérieur là qui est faux non ce n'est pas bon ce n'est pas vrai c'est du pur mensonge il faut dire la vérité aux Sénégalais wax leen dëgg nit ñi wax leen dëgg nit ñi ne ko Ousmane Sonko n'avait pas envie de faire cette déclaration de politique générale. Pourtant, je vous rappelle pourtant Aliou Sow c'est pas du discours bu mu tenir euh, euh, moom il a soutenu quand même que bañul def déclaration de politique générale mais justement nañu changer le règlement intérieur. de oui. l'Assemblée nationale. Ah il a le droit eh j'arrive je sais ce qui va se passer je viens d'être nommé premier ministre de la République du xam naa ni man jour bi ñu nommé ci lendemain bu ma newee ba yow man xam naa sama liggéey li ci ëppoon solo d'abord un premier ministre qui arrive mooy sa déclaration de politique générale pour Sénégalais yi xam naa lay dérouler adduna bi xam ko aussi au départ tout de suite arrivé bu mu ba yow jour boobu war na xam loolu moom xam na ko na ci xam nga lan la wax leen dëgg sénégalais yi parce que la preuve. c'est quoi la vérité ba règle ba règlement intérieur bi ñu ko réglé ba pare jox ko gi mu promulgué ko moom le président de la république qu'est-ce qui s'est passé tapale bi foofu la commencé donc coow ji yépp li ñu war a wax ce grand monsieur pour qui j'ai beaucoup de respect et de considération li ñu war a wax xam nga mooy la mooy ci njëlbeen moom waa ji lu tax defu ko waa ji moo indi problème parce que bu fekkoon ne moom ñëw na avec un projet clair net précis solide comme ban ma la liiree yow say mbir ak sa livre bi ma may eh bu ko defoon mu leer naññ mu ñëw bu ñëwee rek day dérouler parce que xam na li mu war a def xam na fi mu war a jaar avec naturellement quelques ajustements parce que il faut nga nekk ci nguur pour mën a xam yenn précision yi bu fekkoon ni leer na ci seen bopp donc tout de suite au départ ils arrivent et ils assurent et ils assument assurer bi nag mooy lan nan la ñu war a commencer mooy xanaa du ñëw teg mbir yi dem def déclaration politique générale politique générale parce que xam nañ li war a def waaye dañu xaar ba juróom-ñett fukki fan ba mu des fukki fan pour que de tradition li ñu daan def quatre-vingt-dix jours yi mu dem ba xaar ba quatre-vingtième jour bi mu mhm. bind leert doog a wax loolu mais mais yéen xanaa ñun nit ñi xamuñu xel mais lu tax def ko au début wala il ne le savait pas xamu ko woon il s'est rendu compte au bout de quatre-vingts jours de règne que ni eh fukki fan moo ma dese pour déclaration de politique générale xaaral ma bind leen courrier wax leen sangam ak sangam ak sangam pour wala ñoom xamuñu woon Non, il y a quelque chose qui ne va pas. On doit arrêter de s'enfermer dans le mensonge dans ce pays-là. Il ne voulait pas le faire et Diomaye a voulu garder une certaine forme de loyauté par rapport à son ancien patron que lui, il est devenu sien. daf koy jéem a protéger il a le man su ma doon conseiller nekk ci wetam nekk ñu bokk mbuus ñu bokk mbuus eh bien naa waaye lu ma ko wax bul dem parce que du ñu fa yegg xam lan laa koy njëkk wax buñ buñ ko falee rek booy préparer nga dem def déclaration bi. dañ koy assumer nag ils ne l'ont pas assumé et maintenant bëgg nañ leneen c'est la première fois dans l'histoire de la République du Sénégal ñu am un premier ministre monsieur Camara mu ne moom du dem def la déclaration de politique générale dissolution bi sa n'a absolument rien à voir c'est totalement différent mais mënoon na ko def le 12 le 13 mu mu mu mu mu mu def leneen. bu ko neexee parce que constitution bi moo may loolu président de la république mais nañu jaarale mbir yi yoon mais Diomaye Faye mooy article 42 loolu la wax mooy garant du fonctionnement des institutions et cetera. Mhm. loolu la wax. mais moom article 42 boobu est-ce que Diomaye bàyyi woon na ci xel. est-ce que Diomaye bàyyi woon na xel ci article 42 boobu moom gardien de la constitution. garant mhm. est-ce que bàyyi woon na ci xel moom. bi bi bi bi bi moment bi Ousmane Sonko ne moom ñu imposé ko mu war ko def war ko def dans un délai raisonnable defu ko moom article cinquante cinq boobu Diomaye anamu woon. très bien pour le bo pour le en tant que garant du bon fonctionnement des institutions foofu dafa seetaan lu tax waxul ci. moment boobu ni mun euh, kii parce que moom moo war a faire respecter la constitution et ça n'a pas été le cas donc c'est du tapalé il n'avait pas envie de le faire mais nag bi aussi man je l'ai dit plusieurs fois aux Sénégalais c'est parce que Ousmane Sonko n'a pas osé se mettre en face de ces gens-là pas parce que daf leen ragal mais aussi ca njëlbeen moment boobu mu nekkee ci opposition chaque jour je le répète Ousmane Sonko qui débarque en face justement nan ngay def ak armée sénégalaise par rapport ak Mali

de sa vie et forcément day poser problème yu pour l'éviter il aurait fallu tout simplement mm. qu'il se dise écoute ñoom ñaar ñu waxtaan ci entre ñoom mu ne ko écoute man mënuma